xarit la sama booy la ñoo bokk équipe nationale ñoo bokk Sénégal soo bloqué Salah ak Sadio équipe bi taxaw mais Madrid bloqueel bloqueel Zidane bloqueel kii Cristiano Benzema yow ay Asensio ak ñooñu ñëpp Real moo gën a complet équipe moo tax mais nag Liverpool de mérité wuñ ne ko góorgóorlu nañ ba kenn yaakaarul ko woon kon boog waaye nag football moom. avant mat kenn gañewul ah après mat lañ mën a soog a xam mais man ci li ma ci li ma gis maa ngi ñaanal Sadio nag yàlla